problème dañ ko yàqal dañ ko yàqal te fii mérite yi mi revient au patriote mérite bi combat bi mérite bi revient au patriote ñooy mérite bi ku xool ci ñoom wala rus yenn yi ku xool ci ñoom ak ñi dee war a jomb yenn yi ku xool ci ñoom war a jaayante ak yenn yi moo tax nag ma bëgg a jege jamaay parce que xam naa dëgg yi kenn du ko ko wax ñu fa jege ñooñu ñëpp ay ñoo xam ne gëmuñu sax seen bopp dèjà ay somoor ñu ci bëri somoor lañ woon ñu jomaa am lañ lu mu leen teg dañuy ragal moo tax ma bëgg di ñëw jege jomaay man dama bëgg a jege jomaay nee naan bëgguma benn poste je veux être le conseiller de jomaay parce que man maa koy jam dëgg yi raay ba muy cëppi cëppi saf sap keneen ku ko wër ko wax loolu gars yi dañu complexe de ñenn dañ toog foofu di sommet di taxawaalu ñu jox leen dara nga gëmewuñ ko man sommet wu ma faalewuma ko ragaluma ko rusuma ko bu ma toogee nii laa koy waxee da ah, ko sa waay say nitu démb ñooy say nit waaw li nga def nii ci Cheikh Thioro du dëgg du ñii ñoo reyante ay nit lañ yu représentatif bul fàtte démb mais malheureusement amul ñu ko wër ñu kii ñu ah, ñu fa teg yooyu kan kan ngeen yaakaar ni discours bii dina ko dina ko wax jomaay kan la wax leen ma kenn kan ngeen yaakaar ne moo wër jomaay ko ko ñimee wax lii <laughs> kan ngeen ko yaakaar kan ko leen ko yaakaar man bu ma taxoon ak jomaay ma jam ko ko de barke alxuraan balaa tëdd tey ci guddi gii dinaa mel ni gaynde guñu xabtal billaa day ñëw rek gis ma ci appartement ma ne ko kuk kuk kuk kuk waaw kooku yu fëgg heure bi man moo ma ko nalawee ah ma ko nalawee du ma nalaw ah ah oui lu xew non ma bëgg ñu waxtaan même bu dee deux minutes la ah waaw ok ma jam la ko foofu man fekk na mu jabari ma jam la ko ba mu sax sàpp nga ko maa maa ngi te léegi nag ma tëddee nalaw lii mooy dëgg bi mooy dëgg bi ñii ñi ngi lay yàqal sey nit ñu ngi lay yàqal say nit voilà